Ei! Ei, Satooka. gis nga bari wax baaxul. Naby Vision. bari wax baaxul. gis nga ñun patriotes yi instant yi bëgguñu woon wax sax si kii bi mais yow kañ jëloo bu remboursé. bari wax baaxul nek ci télé wal waal beli man la djégu linguer djégu saint louis man la saint louis man la signer yi sen <laughs> waxa bari rek mais ku dugg fe fee ñëpp ñew ñëpp ko ñëmé rek fe ñun ñoo ko ñeme ñun dañuy dugg gënd gëna bëgg mais fe ku fa ku dem maanaam xal deux jours nga fay def rek xol cuub sa dara ko yeen da ngeen tam yeen ngeen tam ay kilim ay wax yow barki seete xolol ñun ñu ngi si jàmm de xool leen maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm de xool maa ngi nii fii toog relax jàpp suma jàmbur quoi xam nga <laughs> remboursé. <laughs> jéegi de koo ànduloo bu suwa nga ko barke Seydina moo xam ne lii daa xaru dee sax ma ko gën a. barki dem bi ñu la invité ci may mun a ngay wax ak tànk may jigéen wallaay as ma toog sama naat bi laa teg ma ni kii ñeme na fi mu jëm. man leen gis nga jéegi mii maa ngi toog di ko waxtaane wallahi azim barke yonent yàlla Muhammad maa ngi toog ak sama xarit di ko waxtaane man leen man ko gis nga jéegi mii ñuy tuumaal naan ko dafa laar ñu naan ko dafa laar dafa laar man leen kii nii muy waxee dafa ñeme fi mu jëm man leen kii jëlu xaalisu jàmbur man leen kii mu naa man ko nii muy waxee ku jël xaalis di nga patine mais jéegi mii ni ma gisee muy waxee nii jëlu xaalisu jàmbur moo tax nit a lëndam yow loo jëru looy fayee. Naby Vision yow tey fournisseur yi génn taxaw ni yow lañu doon jox. ah ñëpp taxaw ne yow lañ doon jox ak ni nga wax ci mayum na barke yonent yàlla yéen na kuy am fi kuy ñeme yàlla kuy kuy lekk alalu jàmbu dëgg boo ko bëggee xam dama appeer yéen am fitna te mën a lekk ak yow jéegi wallaay asi musuma ànd ak yow soxloo ma sax ànd ak waa appeer mais dama amoon ci yow ne boo tuddee say doom rek sama xol tooy fi ma toog wallaay Aziz chaque jour ma naan kii de defu dara kii de nañ ko bàyyi kii de xam naa ne dañ koy bàyyi mu ñibbi këram ndekete ko yow xaas yow yaa ko jël yow loo jëlul yow nooy noo nooy nooy taxawee ni dangay fay yow loo jëlul nooy tax man da lu ma jëlul lekkuma ko dañ may rey nañ ma tëj à vie waaye duma ko joxe waaye ñu def la garde à nga ñam yooya ñam sées ba ñam karo yi rek xëy génne di nga joxe fournisseurs yi taxaw ni yow lañ ko doon jox dama ne gis nga gis nga gis nga enquêteurs yi ku ñu bëgg japp dañ lay japp barké léru alcorane ta yow ta yow jéegi barké seigne Touba mbacké yow da nga rusloo ñi ngay and amna ci gaynde makki sax da ko rusloo parce que gaynde makki dem fu mu taxaw nañu genn na wa jeune apéri genn na responsabilité genn tay yaangi ni barké alcorane karim tay gisoo kenn ku taxaw ci réseaux sociaux taxaw ni jéegi dañ ko wara bayyi parce que yow ba nga mëne ubbi sa gëbbi ji da ngay fay rek lañ la épingle moo tax nga ni da ngay fay yéen ragal leen yàlla ragal leen yàlla nit lu ma moomu da ko fay bàyyi sonal ngeen réew mi fàtte ngeen ñu rap rap rap yéen waa appe yal nañu yàlla atte yéen te wallaay asib yàlla dañu yow Ousmane Sonko nee woon ne leen pépp bu ci waay sex di nga ko goqi lu bokk ceew di nga ko goqi tey jéegi yow war nga am fitu sax taxaw yow naka ngay xoolee waa koñ bi ak naka ngay xoolee waa APR. Naby Vision man fii laa taxaw wóor na yàlla ci biir sama biir kër gi ma ndaw sii ndaw si lii muy wax nii dangeen a am fit nag yéen yéen waa après dangeen a am fit te lu dul dëgg ngeen téye téye te ba ba nga yaakaar ne dëgg lay doon yéen waa APR kuy wut fit ba sonn ma ma maa xàlla da ngeen ne téem lu bon a bon a bon ba loo leen si àddina da ngeen yaakaar ni dafa bon yow jéegi tey yow war ngaa tax man de bu doom man la tey ji te wax naa ba samay nit ñëpp génn dee moo may gënal wax jaral na ma sama ngor rey ma ma dee mais duma taxaw mukk ni ndekete yow li ñuy wër yëpp yow yaa ko jël dama di ko fay sa gàcc gii xaw ma noo koy waxee waa kër ga police daf may wër maa ngi nii man daj may wër laal ma gisuma ministre bee ma plainte looy fay loo lekku noo koy fayee man lu ma lekku duma ko fay lu ma laalu duma ko fay waaye tey jii am na ci ko nga xam ne moom lu lu jigéen ni taxaw ci réseau sociaux di mel ni kankurang ci sunu kaw taxaw dañ ko dañuy asar newu ci kanam jéegi ña jéeg ñeme na fi mu jëm jéegi jëme na fi mu jëm jéegi du daw nga taxaw naa salatul fatiha laa gëm ak sama jëkkër ak samay doom ak salatul fatiha laa gëm naan Macky Sall ma ne suñu yoon ci Macky Sall da ngeen génn xaalis bi. coow yi ngeen di dégg yëpp fan yii yëpp ki li ñuy wax Seydou Kane. Naby Vision. ñu ne am milliardaire la boo xamante ne xaalisam mu ngi ko amee Gabon. Gabon la ko amee mu am ñett nationalité la am gabonais mauritanien ak sénégalais passeport diplomatique sénégal la yor Macky Sall moo ko joxoon. geneen bi ab businessman lañ wax coow yëpp ngeen di dégg fan yëpp si affaire Azer indi Jean Michel Sène yóbbul Jean Michel Sène coow yëpp boo leen gisee débat bi yëpp fan yëpp. ça tourne autour de ça ba ñu dugal sax Abbas Fall ci wàllu benn xaalis bu ñuy wax cinq milliards duñ ko ger tout le monde est là. Moi, je ne sais pas ce Mais les preuves sont là. Wadi a fait une surfacturation sur l'affaire et poteau. Je ne sais pas si je suis l'électrification rurale. Pour 200 000 légères. Quand il y a un tactile, partenaire espagnol, il y a un légal, AAPO Espagne. Je facture poteaux poteau. Le poteau est 1 million lol nak gaay duñ ci wax journaliste duñ ci wax débat yi gaay boko boo ko c'est comme si dégguñu ko mais dañuy focus bu ñu gëmloo ne gain bi ab Sénégalais la ab businessman la bo xolé gain bi ci journal yépp defal benn revue ci journal Sénégal yépp journal equity ak journal si yenn sites gain lu baax la ñuy wax ci mom moy Seydou Kane mi ngeen di gis ni lu baax kese la ñuy wax ci mom Naby Vision ça veut dire que gars bi dafa corrompre yàgg na liggéey journal yi boo gisee fu mu taxaw nit ñi dañuy manam nit ñi dañ leen tagal ay preuve yu leer nañ da leen gars bi dafa bëggoon teg partenaire Espagne bi dil Jean Sessène ñew xoolaat contrat yi loolu motax mu récupéré wat xaalis bobu non lu tollu ci 80 et quelques milliards ne gars ne partenaire espagnol bi moy AAPO Espagne. légui dama bëgg ngeen yokkal ma village mo tollu mu mu yokk village yi ñu war ba 240 villages yokku ci mais gars yi duñu xool les de ça mais dañ ne gars yi dañuy défendre gaañ bi parce que gaañ bi dañ yàgg a ger non partenaire espagnol bi war amul droit résilier contrat bu mu bu ko bu ko léegi Sidi Kane man sàcc sàcc rek lañ koy wooyee quoi sama gars yi waa ji un usurpation bu mu def manam jël ay documents administratifs Sénégal falsifié ko yónnee ko à Espagne pour kooku jox ko xaalis bobu non for kooku jaar ci ginnaaw dem laajte waa trésor ak waa ARCOP ne leen est-ce que document yi yéen a ko bind gars yi ne ko ñun document yi xamuñu ko loolu rek gars yi dañ ko waroon tëj Seydou Kane dañ ko waroon convoqué tëj ko man je me demande la la gouvernement Sénégal di xaar pour leeral lii parce que gars bi usurpation la la def usage de faux pour bëgg a tromper ndax benn partenaire espagnol man c'est pas que man sénégalais la damay permettre sa morom sénégalais miy tegtal benn tubaab non. Naby Vision. sàcc sàcc rek lañ ko wooy quoi gars yi fi bëggoon tëj dil tubaab bi loolu jàllul léegi nag journal mu demoon corrompre yoo xam ne dañ demoon dañ demoon liggéey ak moom mu leen jox xaalis ñu koy bindal lu lu baax ñooñu instant yi jug ak yenn yu mel ne ay Adama Gaye jug bëgg a yàq deru Jean Michel Sène ak euh, Abbas Fall sénégalais ngeen comprendre gars yi élection législative amuñu benn débat débat bi instant dañ ko focus ci wàllu Seydou Kane mi kii mooy Seydou Kane mu am nas ñetti nationalité gabonais parce que xaalisam yi ne gabon la ko defee bu nekké xaalisam lew na man je me demande bu nekkee da nga def ay surfacturation ci ay business di jël récupérer xaalis ñi ba nga doon milliardaire man nawuma la on ma respecte yow on ma respecte yow parce que ay preuve yu leer nañ loo xam ne gars ngi koy wax té mom porte plainte mais gaay ki di ko dañ ne non parce que Sénégalais la parce que troisième troisième passe mu yor parce que Sénégal la ñu ne noonu dañ ko war a défendre parce que dafa war partenaire espagnol bi amul droit mu génnee ko si contrat bi bu ne comme madame kii génne si contrat bi te Jean Michel Sène ñun ñu ngi sa ginnaaw on est avec toi lii nii bu ci kenn dugg milliardaire la yàgg na corrompre ay nit yàgg na corrompre ay journaliste ay sëriñ ak yenn businessman yu nekk Sénégal la moo tax instant bi ñëpp nga jug di ko défendre mais ñun jub jubal jubante lañu woote nit koo xamante ne da ngay falsifier ay document administratif ñun du liggéey ak yow te Jean Michel Sène fu nga taxaw foofu la fu nga taxaw foofu la bu la dara xotal ba nga naan da nga koy da koy boole ci contrat bu mu ci bokk bokkul ci contrat bi ab sàcc la sàcc sàcc lañ koy wooye nga doon sénégalais ak loo mën a doon parce que di la moo feeñ léegi gars yi bëgg ñu ci wax ñuy sonal suba ngoon si débat yi naan ay eh, seedu kon philanthrope la milliardaire la non ñu on s'en bat les ab sàcc la ab sàcc la si prison la war a tëj gouvernement bi dañu ko war sa porte plainte parce que lu mu document yi mu jël naan da loolu war loolu du yoon. parce ci wax. Sénégal lañ ko xamee noonu nag